gën ci saw bi yow borom Touba yaa yaay njiit ci penku bi yow borom yaay njiit ci saw bi yow borom yaay njiit ci penku bi yow borom Tuuba yaay njiit ci réew yi amiin yaay njiit ca maam Aadama baayu nit yonent yi baayu jullit borom Tuuba yow yaa baayu jullit fépp ko Gànnaar njàccaar na fi yow gumba yi palam tuddi ñëw lu di la si daw ba gànnaar kaliwulee du dëgër buur yàlla may nanu ndam lu ken amul lu kenn amul noo ko am laafaale gànnaar maam Samba Jaara mbay leen kaliwuleen bu dëgër buur yàlla may nanu ndam lu kenn amul noo ko am laafaale gànnaar waa jeer yi xam na ni tey waa géej gi xam na ni tey waa dex gi xam na ni bamba ate gànnaar ku seetlu mbooloo yi ànd ak moom mu xam ne ku dul moom daa gànnaar te moom it gànnaar ak képp sëñ Tuba yàlla na ko sëñ Tuba nangu du leen taxaw déglu lii may wax borom Tuuba ngeen dal di xam ne borom Touba mooy borom Touba dugg leen taxaw déglu lii may wax borom Touba ngeen dal di xam ne borom Touba mooy borom Touba dugg leen taxaw déglu lii may wax borom Touba. ngeen daal di xam ne borom Touba mooy borom Touba maam Samba jaar ne bu leen ma tànqal na ngeen cellal ku jugit na ni cel te bañ di tàng xam lu ngeen xam tey borom tuuba te lii ma leen di yëgal lu bët ji soon la bawoon mu xëy di gis ko te lii jagleeg borom tuuba te lii bu dee jib ba déggoog déggi xol yi sa xoogam ngeen biral ne ka tànneefoon borom tuuba ci kaw sëriñ si ñu gis ak kaw sëriñ si xam danoo fi jébbalu xëy jiital borom Touba jébbal ko jàkka ya sa koo taxaw fa ganaam dëkke si kartana barke borom Touba dëkke si kartana barke borom Touba dëkke si kartana barke borom Touba te ñooyay ku gis xutbub jamono bu am fi yow ka ca jiital leen borom Touba jiital leen borom Touba bur yàlla moo ko fi jiital tey kaw lu du lug sete te firnde yi laay leeral ñooy tuuba ba bur na mee leer mu leerale koy wenen ci leerug yonen soppe borom tuuba ñu ñëw ba wi ba rasulillahi ñëw ba defar la yàq woon yewenal mbooloo mi jëm tuuba muy basaa ba yewey fekkoon mu bàyyi fi mu dikk leeral gannaawam ngir mi jëm tuuba muy ngir mu jub mu ne xot ci sikkul dëngul ku caaw daa gooka waaxu ba dem ànd borom tuuba maam samba jaar ne naa dellu nag jëm ci wax firndey rawam gi mu raw bu jiite gaaña ñu naas kay borom tuuba bu jiite gaaña ñu naas kay borom tuuba yeneen ba may na ko yooyu yeneen ya ñoo ko amoon mu doon yu tas tey da koo booleel borom tuuba bàyyu mbindéef yi jikkoom yeneen ba moo ko jagoo mbooloo mirmande moo jikkoy borom tuuba xam-xam ba si amoon ci yàlla muy lu tasoon diggante gaaña la booleel tey borom tuuba njambaar ga noon borom fergaat gurey ga moom la yaaram ba jagleel tey borom Touba kàllaam nga jàll keroog toofaanu jàll si tey ci xeeti Ahmadu mi njiital borom Touba lu doon fa borom maasaar ga moo ko jagoo maanuk sooy buga buga mooy maanuk borom Touba fettuk Suleymaan nga barke mbaa xalimaam nguurug Suleymaan nga mooy nguurug borom Tuuba nguurug Suleymaan nga mooy nguurug borom Tuuba nguurug Suleymaan nga mooy nguurug borom Tuuba dabbuusu Muusa mooy dun xaafi ay dara tey dun xaafi ay dara mooy junjub borom Tuuba dun xaafi ay dara mooy junjub borom Tuuba dun xaafi ay dara mooy junjub borom Tuuba dun xaafi ay dara mooy junjub borom Tuuba abdul xaafi dara moo junjub borom tuuba leerug bi diwub cotaanal taar ba yuusufa nuuru jalaal la ga feeñaandeeg borom tuuba alhamdulillahi rabbil aalamiin baril ak cant war na nun nun soppeey borom tuuba buur yàlla mooy sunu buur yonen ba mooy sunu njiit bambaanu boot bis borom tuuba yonen ba jiitu borom Touba tafal ca gannaawam doy na yaakaar liggéey leen borom Touba diine ji yaa ko saytuwaat yoonu murit nga yeesalaat tariixa yi nga boolewaat Cheikh Sidil Muxtaar ni bëggatoo dégg ku naa tiijaan murit wala mu naa laayeen ña seen ñëpp a ngi naa Cheikh Sidil Muxtaar Laayeen ñaseen ñëpp a ngi naan Cheikh Sidil Muxtaar Laayeen ñaseen ñëpp a ngi naan Cheikh Sidil Muxtaar añ Makka yaa ko dekkilaat yoonu murit yaa xambaat añ Makka yaa ko dekkilaat wujaaji yaa leen waajalaat taal bu fayul nga jafalaat Cheikh Sidil Muxtaar soroor yi yaa ko dolliwaat tali yaa ko defaraat lamp yaa leen leeralaat Cheikh Sidil Muxtaar soroor yi yaa ko dolliwaat lamp yaa ko leeralaat tali yaa ko defaraat Cheikh Sidil Muxtaar lamp yaa ko leeralaat Cheikh Sidil Muxtaar mbënd mi def na ci loxoom milliard la fab ci lu moom ngir jëmmi yàlla sun borom Cheikh Sidil Muxtaar Cheikh Muntaxa noo ngi dagaan nga yàgg a kii fi woon àggale naa li mu sumboon moom Sidil Muxtaar yàlla na sëñ Tuubaa nangu lépp te ful ko te sotti ko sun kaw def ko pajuk aajo ci ak képp ko xam ne yaa ngi dégg rajo bi doyul doyalu leen doyalu nu waaye danoo war a jàllaat ci ay barab yu bari ñu duñu xaar noo ngi leen di tuubal bu baax te di leen jéggul te di leen xaar ci bis bu tedd bi maa ngi ñaan sama boroom na bi télé bii sama borom yokk ko bu baax a baax a baax a baax njiit li di sëriñ Mbàkke yu fay ak mboolem personnel ba fay liggéeyee sama borom defal leen tawféex maa ngi jéggulu bu baax tawarlenti aynato tamnaci ay tektal yoer ngirdemuk tuba misalam birum abu aw so day fenci ay mbirum dinil mar ilan wax serin tuba masifur nu tay mbar niwulkile ku baax ak ku bon ñoom ma dem Tuuba misaalum bon na moo lay xamal jëfam xiyaasal rasuula moom ay Sëriñ Tuuba misaalum bon ak Iblis samay xam li aat lëndëm gaag rëyam gaata su jóg ma jóg man te liggéeyal Sëriñ Tuuba ku xam yàlla